Euh, comme feebar yi ñuy waxtaan yëpp euh, feebar boo xam ne mi ngi tas dëkk bi hmm? mi ngi tas dëkk bi tey euh, ci les mercredis du docteur Konaté dama choisir pour attirer seen attention si li ñuy wax insuffisance rénale donc insuffisance rénale rein déjà moom mooy roño si ah, olof ah Euh, donc insuffisance rénale soo ko déggee moom mooy euh, ne roño bi dooleem euh, dafa wàññeeku te dooleem su wàññeekoo li nga xam ne lépp moom mooy mbalit nga xam ne rein bi moom lay génnee si suñu organisme mooy suñu reesee ba noppi rek lépp loo xam ne lépp li nga xam ne baaxu si rek rein bi moom moo koy génnee Euh, ñu tuur ndox wala ñu tuur dugub donc euh, am na solo trop ren euh, am na ñaari façon insuffisance rénale am na benn boo xam ne moom la ñuy wax insuffisance rénale aiguë donc mooy bu gàtt bi ci ay ay ay ay fan lay lay lay nekk ci yaramam loolu rapidement nit ki mun nañ ko récupérer bon du du ma insister trop si boobu mais si bi nga xam ne moom laay gën a insister moom mooy insuffisance rénale chronique insuffisance rénale chronique c'est-à-dire euh, loolu si ay weer la dugg la la installé wu si ay weer wala si ay euh, at donc. Euh, li nga xam ne moom moo koy andi insuffisance euh, rénale chronique euh, le plus souvent am na ay euh, feebar ay feebar yoo xam ne ñuy wax ne ay maladie chronique ay feebar yoo xam ne dafa yàgg ci yaram genre diabète walla genre tension donc diabète bi soo leen ko fajul ni ngeen ko war a faje wala seen tension toow leen ko ni ngeen ko war a toppatoowee Euh, mun na dem ba yàq suñu roño yi donc euh, andil ñu loo xam ne mun naa wax musiba la donc euh, suñu si jeex si suñuy jeexal di ngeen gis ni que ne vraiment insuffisance rénale chronique lu doy waar la lu doy waaru donc à part euh, feebar yooyu maladi li ñuy wax maladie chronique am na ay xeetu feebar par exemple ay infection infection mooy dafa am doomu jàngoro ci suñuy yaram donc infection mun na mun na dem ba andil la ay insuffisance rénale chronique mun na nekk tamit euh, li nga xam ne li koy andi boo bokk ne ci par exemple ay euh, intoxication Euh, médicamenteuse euh, foofu damay taxaw tuuti pour euh, wax askan bi pour ñaax askan bi parce que su ñu waxee intoxication médicamenteuse en médicament mën na nekk garab yi nga xam ne ñun ñi professionnels yi dañ koy joxe mais li nga xam ne moom moo ci moo koy gën a andi moom mooy garab yi nga xam ne. maaman yi dañ koy joxe wala yenn tradipraticiens yi te léegi dañu gis ne ne loolu dafa bëree dafa law te nit ñi euh, suñu jaaxlee rek ñoom nañuy njëkk dem seet yi ah balaa ñuy ñëw chez les euh, donc euh, de santé donc loolu bàyyi jar na bàyyi xel parce que ngay dem nga am benn affaire bu ndaw nga dem ñu lay jox ay. ay décoction di la jox ay sunguf ak yu demee noonu ngay naan di euh, di di di xooj di naan di xooj di naan nga dem ba sa roño yàquti te roño jarul deux cent francs wala deux mille francs donc euh, loolu jar na bàyyi xel euh, ginnaaw loolu ginnaaw intoxication médicamenteuse yi mun na nekk ce qu'on une intoxication alimentaire donc foofu damay insister surtout ak euh, suñu jigéen yi suñu yaay yi euh, damay insister surtout ci utilisation bouillon yi duma ah. du ma bëgguma def euh, publicité loolu ma tax du ma citer mais les bouillons ah suñ koy tàmm di utiliser parce que maam dafa doon togg ba mu neex ah doonu fi woon def lenn xorom tuuti la di def wala ay xob wala yu demee noonu Euh, te togg bi dafa doon neex te doon nañu woon am benn problème mais dañu remarqué que depuis que bouillon yi ñëw ñëw nañu euh, bare nañu ci marché bi donc euh, dañu gis ne que ne am na yenn xeetu xeetu feebar yu mel ni par exemple ay insuffisance rénale donc xeetu feebar yooyu donc dañu gën a bare dañu gën a tar donc loolu tamit jar na bàyyi xel. am na genre par exemple bon loolu ñun mënuñu si dara lu ñuy wax par exemple ay calcul calcul rénal euh, nga am euh, ay donj ay xeer par exemple ci rein bi wala ci euh, fi nga xam ne saw bi foofu la war a jaar mun na nekk vessie bi wala e e, wala urétère yi loolu am na su yàggee donc mun na dem donc jural la ay feebaru rein donc su yàggee Euh, mun na la jox par exemple ay insuffisance rénale chronique insuffisance rénale chronique naka nañ koy xamee le plus souvent euh, feebar bi dina nekk lu yàgg yàgg yàgg sa yaram mais doo ko yëg loolu la ñuy wax la forme euh, asymptomatique te mun na yàgg sa yaram mais bu am na foo xam ne su fa tolluwee mun na la andil ay ay jéyee genre ay anémie ah donc dafa am ay éléments par exemple benn élément bu ñuy wax érythropoïtine su manqué donc euh, si euh, yaram bi rek si deret bi rek donc loolu daf lay andil donc ay anémie donc anémie euh, ak ay corollaire am anémie ak donc lu mu lu ko ëmb yëpp donc anémie bi mën la dem andil la lu bëre mun na dem ba euh, jàpp cœur bi lu ñuy wax insuffisance cardiaque dina am émission boo xam ne dañ koy def euh, par rapport ak euh, moom donc à part insuffisance cardiaque bi mun na dem ba andil la tamit yeneen problème ay arrêt cardiaque ak yu demee noonu donc loolu benn la ci ci élément ci ci li nga xam ne. insuffisance rénale bi donc noonu lay manifester euh, mun nañu am lu ñuy wax benn perturbation métabolique donc li nga xam ne moom mooy euh, euh, suukar bi wala lipide bi ak yooyu di nekk ci deret bi ci yaram bi dañuy dem ba nga xam ne ni nga xam ne noonu lañu war a fonctionner donc fonctionnement boobu dafay perturber mun na dem tamit si manifestation yi insuffisance euh, rénale ñu am ce qu'on appelle des crampes ay crampes donc dangay ngay dem euh, yaram bi yëpp euh, di metti tout le temps da nga dégg nit ki di jàmbat sama yaram day metti wala sama yax yi day metti wala sama muscle yi donc dañuy def ay crampes bu boobaa loolu jar na ñu gëstu ko donc jar na ñu seet ko pour ñu gëstu ko pour ñu gëstu ko bon mun nañu am na ay jumtukaay yoo xam ne ci deret bi la nekk am na ay jumtukaay yoo xam ne ci saw bi la nekk am na lu ñuy wax par exemple mun nañu def euh, lu ñuy wax une échographie échographie rénale écho wala lu ñuy wax échographie des voies urinaires donc mun na la joxe ay euh, tegtal yoo xam ne daf lay wax ne que ne ah. Euh, rein bi donc euh, am na problème léegi su ñu demee ba gis ne que ne rein bi am na problème euh, lan moo ci des faj bi faj bi nag ay ay pàcc yu bëre la li nga xam ne moom moo ci jiitu. moom mooy xam nga ci début bi wax naa leen ne li nga xam ne moom moo koy andi mun na nekk benn feebar benn infection mun na nekk ay intoxication mun na nekk ay euh, feebar yu yàgg donc genre wax naa sànq waxu diabète ak euh, tension donc euh, si faj bi am na genre feebar yu mel noonu déjà il faut ñu njëkkaleen ñu njëkkaleen équilibré faj diabète bi faj tension bi bu fekkee infection la ñu faj ko bu fekkee nit ki dafa am ay euh, garab yoo xam ne daf koy jël te waru ko jël ñu ne ko garab yi baaxul ci yow ainsi de euh, loolu su weesoo ñu régler problème feebar bi nga xam ne moom mooy andi insuffisance rénale euh, benn wàllu faj bi moom mooy dialyse donc dégg ngeen yéen ñëpp ñuy wax dialyse donc dafa mel nii rek benn machine nañuy branché Euh, nit ku feebar kii machine bi suñ ko branché donc dafay euh, beesalaat donc li nga xam ne moom mooy euh, deret bi donc dafay xaw a remplacer tuuti rôlu rein bi donc loolu daf koy def donc nit ki mun na ko def sur des mois am na ñoo xam ne sur des années donc tuuti pour moo wax leen si dialyse boobu Euh, ñun on a déjà vu ñoo xam ne dañuy def jalit euh, ñi ngi faju ah, ak lépp ah au début da ngay gis euh, day nekk ay nit yoo xam ne dañu am ils ont les moyens dañu am les moyen ñu dem à cause de feebar bi seen moyens yi commencé wàññeeku ñu dem ba benn instant nga gis ñu jaay seen oto wala am lu ñu jaay ci kër gi pour mun nit ki mun continuer di faju ñu dem ba benn instant moyens yi wàññeeku wàññeeku ñu commencé jaay yeneen yeneen bagages yi euh, di nga gis ñoo xam ne sax dinañu dem ba dinañ jaay seen ay yenn biens yi ay kër ay terrain ak lu nekk donc euh, dafa nekk feebar boo xam ne dafay ruiner day ruiner famille euh, parce que jalis moom ah du solution bi nga xam ne benn solution bu définitive la dañ koy def rek tant que nit ki am na les moyens euh, ak euh, tant nit ñi am nañu la possibilité pour suivre ko rek donc ñu ko koy defal euh, solution bi nga xam ne moom mooy solution disons dite définitive moom mooy greffe bi moom mooy greffe bi donc greffe bi mën nañu ko def benn récupérer organe si nit yoo xam ne dañu décédé wala récupérer organe si nit koo xam ne dafa euh, mi ngi dund joxe consentement am am euh, jël benn rein om may ko benn naataangoom euh, bu fekkee seen Euh, ñaari rein yi mun nañu ànd seen ñaari deret yi mun nañu ànd léegi bu boobaa da ngay gis euh, nit ki même ak benn rein nit ki donc euh, mun na mun na dund ak loolu par rapport donc ak dialyse bi ak greffe bi maa ngi profito donc si occasion bi pour féliciter équipe IHO euh, e bi ñi nga xam ne ñoom ñoo réalisé en collaboration avec l'équipe de Dantec ñoom ñoo euh, réalisé premier greffe euh, rénal donc au Sénégal et ça s'est bien passé donc alhamdulilah donc équipe yooyu vraiment ñu ngi leen di remercier di leen encourager xam naa loolu su demee ba nga xam ne dugg na si suñu système de santé. su demee ba imprégné wu je pense que dina régler problème yu bëri et dina régler donc ay euh, problème donc de façon définitive euh, di terminer donc euh, émission bi euh, encore euh, pour encore une fois di remercier auditeurs u Sene Info yi et puis di leen jox dig daje donc le mercredi prochain